mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñi ñu ngi lay ziar bu baax a baax. ñu ngi leen waaw tey moom coalition la peuple ñoo fi ñëwoon. Mhm. ma présenté leen. alhamdulilah. kii mooy Dame mhm. moom mooy moom syndicaliste la. Mhm. moom bokk CUSEMS la nekk. wax nga mooy teewal enseignants yi. jàngalekat yëpp. bokk ci coalition le peuple. kële mooy Mansour Mboub. moom jeunesse pouvoir la bokk. wax nga dëgg. kii mooy Clédor Sène. moom mi ngi nekk Claire Vision. man moom fii sama kër la Abdou Karim Gueye. wér moom xam ak Salif. jëmb yi ñoom xam nañ leen bu baax. Euh, Salif Thiam moom moom Mansour ñoo bokk nekk euh, jeunesse au pouvoir. waaw góor alhamdulilah. te nag yaakaar naa ni ñun moom xëy na bu ñuy wax sax day fekk ne dañ ne bis bu nekk booy wax rek. Mhm. maanaam bul jàpp ni ki ngay jàkkaarloo rek ngay wax. ngay waxal surtout bu amee sax ay xarala yi ñuy filmé yooyu. Mhm. waaye man xam naa ni man gëm naa ni bokk nga ci ñi gën a informé xam li xew li yëngu ci dëkk bi loolu xam nañ ko ndax saa su ne ñu ngi lay déglu di teewlu say xutba allah bu doon mbégte nag bu rëy rëy pour ñu mën fi ñu ñëw fi mm-hmm. bu rëy lool ndax gaañu bi ñuy def tournée sax dañ ne Clédor dafa ne imam ak imam activiste la ah, bàyyi ne ñu mujjee si imam <laughs> mm. comme dépassé nañ dem ñu ne ma non defal nànk rek yow ñun imam nañ dem si moom activiste waaw loolu nag boo gisee loolu

ñu ma rek mooy présentation pour wax ni tey dañ ñëw seet si la mhm. comme tournée bi nga xam jot nañ ko def ci ci ci kilifa diine yëpp mhm. ci dëkk bi dem seeti ñëpp nga xam ne ñëw na seet si nekk ci te ñu mm-hmm. ne la tey dañuy ñëw seet si imam ndaw wax dëgg yàlla waxtaan ak moom ut mm-hmm. ñaanam ut xelam maanaam mm-hmm. fexe ba suñu diine méngoo ak institution yi ni i i seen seen i seen i seen i góor jigéen nag seen i Sénégal daal tegee ko ci loxo franc-maçon yi tegee ci loxo ñi diine ñun suñu combat loolu la teg ko ci valeur teg ko ci njub teg ko ci loo xamante ni dañ koy delloo ci ragal yàlla yàlla ko lay ñu ngi la sant ma jox ma jox dam daal mu développé li si des ak xew-xew yi nga xam mooy xew ci jamono bi yi fi xew yëpp ci Sénégal ak euh, euh, bi xew ak xam nga uh-huh. jaay doole bi ñu jaay doole Sonko li fi xew yëpp daal waaw daam ñëw si suñu taxawaay wax ci ak yow incha allah asalaamaaleykum asalaamaaleykum euh, Ndaw ñu ngi lay ziar jërëjëf Mbodj. ziar bu kawe. alhamdulilah comme euh, ni ko Abdou Karim waxe mhm. délégation bii fi ñëw tey seet si la. mu mhm. ngi tudd coalition citoyenne le peuple. Mhm. maanaam dajale mbooloom Sénégal. askanu Sénégal ngir lépp li nga xam ne jàpp nañ ni lu baax la ci réew mi ñu fulal ko. lépp loo xam ne jàpp nañ ni safaan wala ñu xeex ko. loolu moo tax a jóg coalition bii nga xam ñoo la seet si tey. na may leen ci dem. loolu ñu def nag. Hmm. dañ koo sos ba noppi jàppoon ne sax danoo war a wër kilifa diine yi. Hmm. ak euh, ñi nga xam ni ñoom ñoom laay jàpp ne tey jii ñoo fi wuutu yonent bi salallaahu alayhi wa jàngal nit ñi seen diine. Hmm. won leen li nga xam ni moom mooy tere yi nga xam ni borom bi moom moo leen ko tere ak digle yi. ci loolu nga nekk yow Sénégal gépp seede ko. alhamdulilah comme ñun jàpp nañ ni. jàmm lañ bëgg ci réew mi. te diine islaam mooy jàmm. daw dëgg. jàmm rek la jàmm rek ko la te yow ci loolu nga nekk. alhamdulilah jàmm weesuwul bés bu ne ngay jàngale xale. Mm-hmm. pour won leen ni danoo war a jàmmonte. Mm-hmm. waaye jaamu yàlla sunu subhaanahu wa taala ci loolu nga ne. imaam Sénégalais yëpp nag bi ñu ko rafetloo. comme ni ñuy mm-hmm. demee seeti. xalif généraux yi. wax nga nga xam ne loolu sas woowu ñoom nit dañ leen koo sas mhm. yow mii nga nekk ci looloot comme ñoom ni leen ko sase ñu sase la ko mhm. kon ñun buñ dee wër war na noo yegg si ba ci sa keppaar gii sant la gërëm la mhm. ci turu coalition citoyenne le peuple donc tour askanu senegal alhamdulilah di la wax ni ñun lii ñu yëngatu mënuñoo bañ ñëw leeral leen ko ndaxte defar rek moo ko tax a jóg te yéen ci defar ngeen nekk ndaxte ay tut tànk ngeen di tàggat mm-hmm. ak di leen teete ci seen diine pour ñu jàmmoonte seen biir mm-hmm. taxaw ci seen diine bu ko defee jariñ seen bopp mm-hmm. bu ëllëgee ñu yaakaar yàlla àtte leen ci yërmandeem yàlla na ko suñu borom def waaye kon nag ñun lii nga xam ne moo xew fan yi ci réew mi ku ne gis na ko dëgg la ba mu jur li mu jur ñu taxaw ceet taxawaay biñ ci taxaw alhamdulilah ñu jël ñenn ci ñun. sunu coalition bi lu mu gàtt gàtt. dugal nañ kaso. wallaay ndeysaan. daanaka mën naa wax ci sunu coalition. Mhm. xëy na ñi ci gën a siiw mooy ñun ñii nga xam ne ñoom lañ téye woon. muy ñeent ñi nga xam ne jàpp nañ ne peut-être ñoo ci gënoon a siiw. Mhm. te ñaar ñi bokk ñi mu génn ñu dolli ci rek ji Mari Sagna. Mhm. mais jàpp nañ ci kaso bi. lu mu gàtt gàtt lu mat euh, ñaar fukki nit. yoo xam ne ci suñu coalition lañ bokk. waaw ah. coalition citoyenne le peuple. wax lu mu gàtt gàtt. ñun ci coow lii. Mm-hmm. jàpp nañ ci lu lu mat ñaar fukki nit yoo xam ne ci coalition citoyenne le peuple lañ bokk. wax kon nag xeex boobu ñu doon xeex war nañoo mën a ñëw ba ci yéen. Mm-hmm. leeral leen lu tax ñu ko doon def. dëgg la ak lu tax ñu ciy nekkit mm-hmm. nar cee saxit nag. tax jàpp nañ ne lu baax la. nañ ci ànd ak waaw loolu ñu def nag dañoo leeral nii réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. kon nag kenn waru fee mën a nekk di jaay doole nit ñi rek nit ñi toog di seetaan te jaay doole gi dafa ëpp mm-hmm. ñëpp gis ni dafa am nguur gu fi ne goo xam ni mm-hmm. ci jaay doole rek la ne képp ku wuuteeg ñoom xalaat mm-hmm. ñu ni kii nañ ko faagaagal képp koo xam ne jàpp nañ ni moom nekkul ci loolu ñuy def ñoom jàppale leen ci ñu jàpp ne seenum noonu la loolu nag ñu jàpp ne ci réew moo xam ne même bu dul lenn. ñu ne ñoom ci démocratie googu rek lañ sukkandiku. war nañ koo mën a doxal kon loolu ñu wax moom lañ sukkandiku. dëgg ñuy leeral ne lii nga xam ne moo indi coow lii fi am bërki démb. ak boor bu mu ko mën a jëlee rek ñu gis ni ab complot bu leer nàññ la. pour faagaagal nit. koo xam ni xëy na jàpp nañ ni bokkul ak ñoom gis-gis wala xëy na jaa njort nañ ni kii kat mu ngi am doole. te dañ koy wax ni sunu buur yi parce que ñoom buur lañ jàppee seen bopp. képp ku ñu yaakaar na leen wutu rek dañ koy jàppee noonu. allahu loolu moo tax. du mab imaam du mab ustaas. waaye jàpp naa ni. diine islam li mu wax ci même bu doon njaaloo giñ ko jiiñ. ñoom sax. Mm-hmm. Euh, sartiya ñoom leer nañu matalewuñ ko. ndaxte loolu xëy na jëru sax may sori àll wa pour xam ni. lu mu gàtt gàtt gàtt ñetti nit yu bokkul war nañoo mën a jógee euh, ci fu bokkul ñëw seede ko. dëgg la te loolu ñoom xam nañu amul. benn sax amuñu ko. waaw ñeent. ñeent yoo xam ne war nañoo daje. wax ni mm. lii kat am na. te ñoom loolu sax mënuñu koo matale. wallaahi kon jàpp nañ ne loolu rek boo ko jëlee. gis nga ne ay tappalay neen la li weesu dul nag. Mhm. ñu de ci mbirum àdduna mi nga xam ñoom ci lañ tënku. enquête bu leer am ci. Mhm. wane ni loolu ñuy wax amuñu benn firnde bu tax ñu def. ñuy jaay doole nit ba lii mhm. am am ci fukki bakkan ak ñeent rot ci. yàlla te ñoom ci seen càkkutéef ñoom. andi. li nga xam ne moo indi xeex boobu am ba dee yooyu am ci muy lu rëy rëy loo xam Sénégal gépp ngi demandé sax ñu leeral ko ndaxte ñoom kat ñoo yoroon arme waaye ña doon manifester ay loxoy kese lañ yor kese loolu moom ci vidéo yaa ngi fi mm-hmm. ña doon tiire du ña doon manifester ñu dem sax ba ci indi coow loo xam ne ci suñu réew bëgg nañ koo leeral askanu Sénégal Sénégal ay terroriste néew ñu fi wallaahi loolu il faut ñu leeral ko nañ bàyyi seen yëfu caaxaan yooyu ñu nekk ak seen layam-layam ci mm-hmm. di wax loo xam ne dëppoowul ak li am Sénégal gii ay terroriste amuñu fi. loo il faut ñu leeral ko àdduna bi yëpp ñu yëg ko. kon nag nañ bàyyi. bu ñu amee seen jafe-jafe ak askan wi. askan wi dem ba gis ni ni ñu yore réew mi baaxul. dañuy jël alalu réew mi di ko pasar pasaree. di jël alalu réew mi di ko gere. di jël alalu réew mi di ko jox ay ay ay tubaab yoo xam si ña nga ña nga ca ca tugal ñu nekk fa ñu nekk leen fi ñoom ñii. ñu lënkaloo sénégalais yi nekk ci ndóol. Mhm. dem ba ndóol gi metti ba mënatuñ ko muñ. ñu am nag porox ndoll bu ñu leen jox boo xam ne gis nañ ne jaay doole am na ñu taxaw xeex. lii rek moo indi coow amoon senegal ah, kon nag nañ wax ci loolu. Mhm. te bañ a bàyyi te te bañ a wuti lay yoo xam ne ñëpp xam nañ ni. ay kàcc neen la. terrorisme amul Sénégal abadan gis nañ fi beneen xeet boo xam ne bëgg nañ ngeen yëg ko mooy ñi ngi gis ne fan yi ñi ngi fiy jéem a andi ay bot di ci xeet te ñun mhm. senegal xamuñu bot di compter ci xeet mhm. xamuñu bot di ci xeet xamuñu bot di compter ci diine kooku mu leer naññ fii ci senegal ñëpp yëg ko mhm. kon nag ci loolu rek bëgg nañ yow mii nga def ci sa ñaan danañ ci ñaan bu baax pour que suñu euh, naataangoo boobu nga xam mi ngi tudd Ousmane Tunkara nekk ca États-Unis di def liggéeyam nekk jàmbaar. yoo xam ne day wax rek li xalaat ci réew mi. ñoom ñu bëgg koo tuumaal ni terroriste la. Mhm. bëgg koo andi fii Sénégal comme ni ñu ah, defoon Assane Diouf. te Assane Diouf bi mu ñëwee ñëpp gis ni kii kat ndeke dañ koo tooñ di woon terroriste. comme comme ni ñu tooñee ñu ñu ñu bari te yow mi mën nañ la cee lim. kon nag yooyu moo war a dakk mhm. tooñ gu metti gi nag lu dal Sénégal bokk na ci dañoo war a bàyyi tooñ gi. Oh, parce que dafa war a jeex. Mhm. dafa war a dakk ndaxte fekk jaamu yàlla boo xam ni dafa nekk ci liggéeyam nga tuumaal ko lu ni weng loo xam leer na lépp ay kàcc neen la. kooku dafa war a dakk ci réew mi. Mm-hmm. baaxul yow loolu mën nga ci ma doy nga ci seede. Sénégal gépp seede ko. wallaahi wallaahi. kon nag looloot bëgg nañ ngeen def ci ñaan. Mm-hmm. ba Assane Diouf loolee ñu mébét ci moom. Mm-hmm. ba koo delloo si waat Sénégal Ousmane Ousmane Tunkara. Mm-hmm. loolu ñu def Assane Diouf ba ko koo def moom it indi ko fii ci réew mi ngeen def ci ñaan ba loolu tamit seen euh, euh, mbirum euh, yooyu ñu pexe yooyu ñuy def yépp yàlla yàlla neenal. bañ mën a toog seen liggéey. yore seen famille. ci ko yore juróomi bantam ca États-Unis di liggéey liggéeyam amul benn jafe-jafe kenn. di rek toog foofa di wax lim xalaat ci réew mi ñu bëgg tuumaal loo xam ni ay ah, kàcci neen la pour bëgg ko indi comme li ñu defoon Assane Diouf loolu bëgg nañ ngeen def ci seen ñaan mm-hmm. euh, pour loolu baña baña bañ a àntu mm-hmm. léegi nag ñuy wax ni réew mi li fi ne mm-hmm. war naa tamit jar yéen ñii nga xam ni seen suñuy kilifa ngeen parce que comme ni ma ko waxee sànq ñun ay wéy ngëm lañ te ñun ki nekk way ngëm li mu gëm mooy ñi nga xam ñoo fi wuutu yonte bi sallallahu alayhi ñun ñooñu la ñuy déglu ñooñu lañ gëm ñun dëgg la ñun ñooñu lañ gëm mais koo xam li ngay sukkandiku bokkul ak sunu aada hmm. bokkul ak sunu cosaan hmm. bokk ak suñu diine nga laqatu ci laïcité ñun kooku mun ñu koo déglu kon ñun yéen la ñuy déglu loolu moo tax bu ñu amee jafe-jafe fokk ñu ñëw ba ci yéen yëgal leen li nga xam ne moom moo tax ngeen di dégg ñu yëngatu alhamdulilah ñuy wax ne réew mi nag li fi ne dafa war a dakk hmm. li fa war a nekk dafa war a dakk mooy ñun mun ñoo nekk ay ay musulman ay chrétien ku ci nekk a diine kenn du ko laal ci lenn lu jëm ci mbirum état kenn du ko dugal ci école bi kenn du ko dugal ci fenn léegi nañ ko boddi moom diine. parce que ñoom nee nañ ci laïcité la ñuy dund. loolu lu mbir mu garaaw a garaaw a garaaw la ci ñun Sénégal mu leer naññ comme ni ñu ko waxee yeneen xalif généro yenu jaar yëpp. li leen xamal bu ëllëgee bés peñ ñun ñëpp daañu rendre compte. parce que mun ñu nekk ay jullit. ba nopp ñun yéen seen diine tege leen ko nee teqat la suñu jëmm ji. ak suñu diine bëgg ne diine ak jëmm ji bokkul. nañ boo boo ñëwee ci mbirum réew mi léegi tegal sa diine ne bu kenn wax waxi diine ndax dañoo nekk ci laïcité hmm. loolu mbir mu garaaw a garaaw la te amul menn réew ma ko def lu fi yàqu nag États-Unis gée hmm. ñuy joxe référence ci àdduna bi diine dafa bokk ci seen lépp lu wér président bi buy waat day wat ci diine jëm gëm diine jëm xale bi nga xam si tout tànk la buy dal école hmm. day taxaw ci kanamu classe bi wala mu dugg classe ne I pledge allegiance to the flag of the United States one nation under God mooy yàlla with justice and liberty for all loolu la xale bi waat bala moo dugg ci classe bi ñun Sénégal kenn ñoo ko fee def waa léegi ñun waru ñoo xalaat suñu bopp ñun sénégalais yi ñu waxante dëgg mhm. léegi nag lii boo ko waxee ñu bëgg laa diaboliser te ñoom ñoo gën a xam ne diine islaam mooy jàmm dëgg la jàmm ku bëgg jàmm dëgg da ngay nag nekk jullit mhm. parce que jullit jàmm lay wër suba ngoon boo xëyee nuyu sama rob ne ko asalaamaaleykum ñaanal ko jàmm kon nag loolu lañ bëgg leeral ba mu leer nañ ci yéen ñëpp nga xam ne comme ni ma koy waxee ñun buñ jaaxlee ci yéen rek lañ mën a ñëw alhamdulilah kon nag ñu ngi lay xamal ne la suñ tànk yii daal tànk cant la jërëjëf ak tànk leeral la li tax ñuy yëngutu te réew mi dong nga nu tax a moonu ñor leneen ñoruñ ñun ñii ñëpp ak ñoo wér politique wuñu mhm. parparloo wuñu mhm. ànduñoo kenn ku dul sunum réew réew mi rek ñu ñor moo tax ñu tuddee coalition bi coalition citoyenne le peuple mooy askanu Sénégal la ñuy woo ci baax. ak lépp loo xam ne jàpp nañ ne mm. baaxul ci réew mi ñu taxaw ni lii bu mu am sunum réew. te looloo bokk na ci ca lay daaneele mm. li nga xam ne mooy mbirum ngóor jigéen mi nga xam ne mi ngi law ci Sénégal. Mm-hmm, mm-hmm. Sénégal ñu koy boole ci réew yi nga xam mi ngi ci digg bi. ndax daa am réew yoo xam ne law na fa carrément ba ña ngay wonewu ca mbedd ma léegi di mars. Mm-hmm. ñoom ngóor jigéen ñi. di mën a fësal seen ngóor jigéen. seen am réew yoo xam ne dañ ko faa tere Sénégal waroon a bokk ci ñooñu. mais kenn boolewu ci Sénégal classement bi ñuy def Sénégal ci digg bi lañ ko teg. maanaam di waajal kon pour dem ca kaw mooy ñu koy ñu koy ñi ko daganal. ñuy wuti pexe nag. Mhm. ñuy wax ni. ñun ñoo ngi ci liggéey. Mhm. ak kuréel yu mel ne ànd sàmm jikko yi. ak yeneen kuréel yoo xam ne li nu bëgg ci réew mi. Mhm. mooy ñu voté ab loi assemblée nationale bu dee assemblée nationale ñun ñoo ko moom ñun sénégalais yi. ñaari diine yi fi nekk. dañuy bañ ngóor jigéen. ñu dag ñu ñu ñu dem ci assemblée suñuy hmm. député bu dee ñun suñuy député lañ ñun. bu dee ñun ñun askan wi bu dee ñun ñun ñun ñun lan nekkal assemblée nationale ñoom député yi. Hmm. ñu voteel ñu loi boo xam ni dañuy tere ngóor jigéen ci Sénégal hmm. loolu lañ bëgg. lii nag ñu sañoon yéen ñëpp. bu ngeen dee xutba ngeen wax ci bu ngeen dee waxtaan ak seen taali bi ngeen wax ci bu ngeen waxte waxtaan ak képp ngeen defal ngeen wax ci yéen ñëpp moo tax te moom bu dee moom rek la gis nañ ni bés bu ne mi wax waaye nag ñu fexe ba mhm. bu leen bàyyi di ci wax pour ñaax askan wi ni mhm. pétition bi nga xam si moom lañ bëgg Sénégal yëpp signé ko ah parce que ñoo ngi waajal pétition bi ñu ngi ci euh, ñu ngi toll rek ci kilifa yi ñu signé mhm. bu kilifa yi bare ñu teg ko ci loxo askan wi ñëpp signé ni askanu Sénégal musulman comme chrétien comme mm. seen i diine day bañ ngóor jigéen mm. d'accord nañ ne nañ voté ab loi ci assemblée nationale pour ni ngóor jigéen dañ koy tere Sénégal lii bëgg nañ ko parce que aar suñuy doom weesuwul loolu ndaxte góor jigéen day yàq askan léegi nag ñii nga xam ne ñoom ñoo ŋànk li xew ci àdduna bi mooy franc-maçon yi mm-hmm. tuddee seen seeni bopp ay illuminati mm-hmm. nga xam ne ñu am alal ci àdduna bi ñoo ko ŋànk pour nërmeelal diine ak ngëm-ngëm looloo war nañ koo leeral ñëpp ñu mu leer seen bopp yow leer na man leer na nañ sa bopp waaye nag du tee ñu dolliwaat ndax dangaa yore taalibe te ñu ngi nii toog mm. dangaa war ay nit ñoo xam ne dañoo mm. jokk ci yow ñu ñii sax mën nañoo wax ne yow mii comme ñu ko waxee xalif généraux yi ni nekkee suñu kilifa mm. noonu nga nekkee suñu kilifa te ñu naw lool sa liggéey ci liggéeyal mm-hmm. islaam liggéeyal diine ji ba ñëpp naw la ci loolu kon nag ñun bu ñuy def tournée di seeti xalif généraux yi mun ñoo bañ a ñëw ci yow lii rek ndaw jërëjëf maam moo ñu fi indi woon moo doon suñuy tànk di la sant mhm. di la gërëm di ñaan nag nga ñaanal ñun suñu mbooloo mi ñaanal coalition citoyenne le peuple mhm. ndax lii ñu nësër ci réew mi muy njariñu réew mi mhm. yàlla jàpp lañ ci ba mu sotti ndaxte leer nañu bu sottee njariñu Sénégal